بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ñi ngi dellu si di ndokkeel mbokk yu tedd yi fi teew yépp dellu di sant yàlla moom mi nga xam ni moo nu may nu fekke guddi gu tedd gi te nu jagleel ko Mawlaaya Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Tijaani Sharif su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moom la Cheikh Tijaani Sharif am comme kilifa moom itam yàlla dogal nuy barkeelu ci weeram fa tabaarakallaahu mu mel ni xakim yi dañu daan faral di wax ni yàlla su gërëmee jaamam ñu wax ni loo laal ci jaam boobu rekk bokk ca ngërëm ga te itam yàlla daf nu boole koo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tànnal boppam def ko mu doon xatmiyatul maktum waaye itam yàlla dogal muy barzaxul maktum su ko defee loolu yépp daje ci moom yàlla may nu sens bu tolloog nu ñëw bokk ci njabootam te moom Cheikh Tijani Chérif boo ko xàmmee li ngay njëkk yëg ci moom mooy njabootam dafa yaatu moo tax ku mu dugal ci biir ëttam rekk teral na la ndax njabootam dafa yaatu jëmm bu tolloo foo xam ni mbooloom ku bokk ci saalihiin yi da ngay xëcc pour bokk ci njabootam soo demee ba yëg ni yaa ngi ci ëttam jamono ju nekk rek sant yàlla daf lay war te mooy li nu Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif boole muy tarixatul xaq muy tarixatul xaq soo demee ca siège am biy reflété gradam ba ñoo tuddee xatmiya dañ ko fa inscrire ndax yàlla ci dogalam lu mu jël dugal ko ci monde xayb dana ci def seede lu mu dugal ci monde xayb dana ci def seede waaw tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko waxee ni ko yónni nga ma waaye teewul bare na ñu wax ni damay woote ni yaa ma yónni waaye réellement yónni woo ma kon nag léegi kan nga may indil pour mu doon sama seede ndax yow xaybu doo décréter lu amul seede waaw ca la ko yàlla ni ko huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa diini l haq li yuzhirahu ala diini kullihi wa kafa billahi shahida waaw yàlla ni ko maay sa seede waaw yàlla ni ko maay sa seede te man ku ma doon sa seede mënatoo am seede bu ma ëpp waaw moo tax Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijani Cherif boo demee siège am ba nga xam ni fa la ñuy reflété grade am ba ñoo tuddee xatmiya waaw daaw fekk benn buulu lumière buy tourné waaw buulu lumière ba ma nga ca suufu siège waaw inscription yéen fa bind mooy tariqatul xaq waaw di wane ni kii moom la ñu jox yoonu dëgg waaw kii moom la ñu jox yoonu dëgg waaw xam nga bu ñu waxee yoonu dëgg nag dafay laaj interprétation bu ko nopp mën a dégge waaye itam interprétation bu ko rox mën a nangoo interprétation bi ko nopp mën a dégge mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu ko yàlla jagleel muy religion bi nga xam ni yàlla nee na moom religion bi bosam la te muy islam religion révélée yëpp di booxante ci bunt bi yàlla ni inna diina indallahi l islam ba noppi jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko mu doon le prophète de l'islam moo tax tariqa tijaniya base fondamentale yi ci nekk yépp de A à Z amul benn boo xam ni mën na génn diina l'islam looloo tax ci condition yi Cheikh Tijaani wax ni juróom yi ku sàmmoonteeg moom nee na sàmmoonte nga kóllëre sa digganteeg man te yowmal xiyam duma taxaw ludul yaa ngi ci sama wet waaw ñu laaj ko juróom yi lan la mu ni mooy balaa ngay adhéré ci sama tariqa mu fekk la nga nekk jullit ba pare moom bu ne jullit nag muuminuna xaqan moo tax muy wax moom bu ne jullit vrai croyant moo tax muy wax waaw te yàlla dafa définir vrai croyant comme ki nga xam ni li jiitu ci moom mooy am na imaan bu mot sëkk waaw la ñoo tuddee la foi waaw moo tax boo amul imaan munoo adhéré ci tariqa tijaniya waaw boobu mooy ponk bi jiitu waaw bi ci topp Cheikh Tijani Chérif wax ni duma yam ci nga am imaan kese rek nu ni boroom imaan la da ngay pratiquer waaw mu ni moo tax julli juróom yi nee na condition la nga koy motal pour mën a adhérer ci tariqa tijaniya moo tax ku dul julli du bokk waaw ku dul julli Cheikh Tijani Chérif du la woo mukk ci tariqam nee na tariqa bi boo ci adhéré da ngay motal julli juróom waaw ñu ni ko bi ci des mu ni boo ci adhéré da ngay fexe ba shahru ramadan bu jotee yàlla may la wér bi nee na nga woor ko waaw ndax obligation la waaw obligation la waaw kon ci fondement islamique yi la bokk mu ni beneen bi ci des nee na li jëm ci wàllu azaka booy adhéré ci tarixam nee na nga am lu toll na la nga mën a génne azaka nee na faw nga natt azaka waaw ñu ni lu tax mu ni ndax ci fondement islam yi la bokk waaw bi ci des mu ni booy adhéré ci tarixam nee na même bu fekkoonte ni bés bu ne yaa ngi jàkkaarloo kaaba ga ca Makka bés bu ne yaa ngi jàkkaarloog moom nee na su la yàlla mayee moyen yi may la wér bi demal nga def sa farata xaj ca mag waaw cheikh nee na yii mooy tax ma mën la accepter en tant que disciple su ko defee nag kiy laaj ndax am na ñu ciy posé wu question nga dégg ñu wax la ni nga nekk jullit julli kese ñu ni woor teg ci ñu ni natt azaka boo ko mënee ñu ni di def sa haj ca màkk war na la doy waaw ñu wax ni li ci des nga adhéré ci tariq xawu ko jar ngay topp sunna rek ma ni waaye est-ce que xàmme nañu sunna dëgg waaw est-ce que xàmme nañu sunna dëgg léeg-léeg nga dégg ko la ni jaru ko waaw jullil rek wooral rek génneel azaka demal màkk rek waaw su ko defee nag jarul ngay adhéré ci tariqa nga topp sunna rek ma ni Cheikh Tidiane Chérif bi ko yonent bi joxee la crème de la lumière mohammadienne kenn yëgul fu Cheikh Tijani woowee nit ni ko kaay bokk ci sama tariq da ngay ñëw demander pour ñu tibbal la ca lumière ba mu teg ay conditions kon dama bëgg wax ñiy wax ni loolu rek doy na jarul tariqa boo yóbboo ñu jàpp li ñu jàpp maanaam Cheikh Tijani woowul kenn dafa ni soo bëggee defaru ci crème lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci xaqiqam la crème lumière bi nëbbu boo tànkul ci kuddu salaatul fatiha ki ci tànk dana xam loo xamul dana yëg loo yëgul dana gis loo gisul dana fekke loo fekke woon moo tax propagande amu ci waaw propagande amu ci xam nga lu ci am mooy woo bi Cheikh Tijani Chérif woowoon rox ya waaw ca alabul arwaax waaw woo bi Cheikh Tijani Chérif woowoon rox ya ca alamul arwaax gis nga bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe la crème de la lumière leer la ca dàq leer la dàq ci leer moom la ñoo tudde la crème de la lumière am leer baax na waaye am na la dàq ca leer la dàq ca leer la yàlla misaal ci alxuraan ni yéen ñëpp ay jullit ngeen d'accord ngeen ci wax baatu laa ilaha illallahu d'accord ngeen ci wéetal ma waaye fahlamu annahu laa ilaha illallah waaw li dàq ca lumière la ñoo tuddee la crème de la lumière moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël jox ko Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif bi ko ko yonent bi joxe boobu du léegi waaw boobu du léegi loolu jiitu na waxuma ca alam bala jiitu na alamul xaqiqatu nuur waaw kon boobu état nuuraani yu la waaw état roxaani yu ñëwagul waaw état nuuraani yu la état roxaani yu ñëwagul parce que état roxaani yu biñ koy seede boobu ña nga alamul arwaax waaw mu yëg ni yonent bi jagleel na ko loo xam ni nitu yàlla yépp dana nu wëri ki ko détenir pour def ko kilif ndax moo leen di àggal ci yàlla muy xatmiya mu dal di woote pour ndimbal moom cheikh ca alamul arwaax wax ni rox yi sell yépp te bëgg jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg te bëgguñu yonent bi nëbbu ci seen bët donte dañuy dund ci wàllu zahir te bëgguñu tàggalikook lumière yonent bi ñëw leen ma sedd leen bu dee bëgg ngeen ci li ma yonent bi jox keroog la rox ya ku nekk di tàllal sa rayon lumière di jokk ci moom ku ne di tàllal sa rayon lumière di jokk ci moom ba ñi war a doon taalibeem àdduna ba mu taxawee ba àdduna di tukki keroog kenn ku nekk jokk nga sa rayon lumière ci moom moo tax ngay dégg nu ni taalibe Cheikh Tidiane démb lan ka tànnoon du tey waaw ku ci war a bokk ba àdduna di tukki ak ci continent boo mënta nekk ak ci réew moo mënta nekk bu sa waxtu bokk jotee da nga ñëw jaayanteeg moom waaw ndax ca cadre ruhani yi la woon waaye axtaab yi ñoom dañu yëgoon ni Cheikh Tijani Chérif bu demee ca alamul arwaax dana woo rox ya moo tax ñoom bi ñuy jokk ci moom boobu ca cadre nuraani yi la waaw te yàlla jox na leen cër bu ne waaye am na loo xam ni xam nañ ni duñ ko mën a xam lu dul ñu jël Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif def ko seen kilif ndax moo leen gën a jege yonent bi waaw looloo tax lanu jaayante woon ak moom ca alamul arwaax moom cheikh bim koy séddale pour rox ya nga xam ni ñëw nañu ci àdduna jot ci ca lanu créé processus bi jur wàllu formalité ba waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak teram ngam gu yaatu ñëw jaayanteeg moom jokkalanteeg moom ba jox ko salaatul fatih waaw ñëw jokkalanteeg moom mu jaayanteeg yonent bi ba mu jox ko jawharatul kamal jaayanteeg moom mu jokkalanteeg moom ba mu jox ko istighfar jaayanteeg moom jokkalanteeg moom ba mu jox ka laa ilaha illa allah waaye Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif pour servir yonent bi pour servir yonent bi mu séddale ko ci rox ya nga xam ni seen rayon lumière jokk woon na ci moom tey ku jot ci wérd ba mëntee salaatul fatiha di jàng ñu nangul la ci rox yooyu nga bokk moo tax ku xëccu it yor wérdu bi dem ba yàgg ñu ni bàyyi na wérdu bi mooy bokkul woon ci rox yooyu mais dafa gisoon rek euphorie bi ci àdduna mu bëgg ci boole boppam ndax Cheikh Tijani Chérif lépp la segg moom lépp la segg gis nga moom ambition wam moom Cheikh ambition mooy liggéeyal yonent bi waaye gis nga li muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg su ko présenté yonent bi ña taxaw ñépp seede ni liggéeyal na yonent bi nee na mooy ambition dafa ni gis nga moom Cheikh dafa ni gis nga yowmal xiyaam Moussa dina taxaw ak xeetam Isa ibnu Maryam dina taxaw ak xeetam Nox dina taxaw ak xeetam Ibrahim dana taxaw ak xeetam ak yonent yëpp ak seen xeet waaw waaye yonent bi mu ni comme moom la yàlla def muy le meilleur des êtres créés moom buy taxaw problème am du doon moom yonent bi ndax gën na ñëpp ba noppi dafa bëgg xeet biñ koy présenté mu dend ak moom. xeet boobu gën ñëpp waaw te ña mu mënoon sauver moom sauver na leen ñi nga xam ni jotu leen fi fekk bàyyi na téere alxuraanul karim pour téere bi waar leen jëf na la mu waroon a jëf ni nañ leen ko wan ñu topp ci tànkam waaye ndax daañu appliquer wala daañu pratique foofu la problème bi ne Cheikh Tijani ni ma toog xayba di seetaan rek waaw gis ki jóg julli tey jaamu yàlla tey jéem a topp yonent bi dem ba yàgg tarxiis waaw nangu na ko moom Cheikh waaw Cheikh nangu na ki juum waaye xam nga juum bi mu nangu mooy nga juum ba noppi dellu si tuub waaw ndax loolu moom mënu ko bañ ndax yàlla nangu na ko waaw li muy bañ mooy ki juum ba noppi des ci njuumte bi abadan waaw moo tax mu ni mu gis ñi jéem jaamu yàlla jékki saa topp sunna nga gis ko tarxiis waaw nga gis kuy góorgóorlu dem ba yàgg ngëm-ngëmam wàññeeku waaw nga gis kuy sawar ci jaamu yàlla dem ba yàgg tàyyal ci la ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko motadi bi nga xam ni moo nekk ci xeet wi lan lañ ko mën a remplacer ba renforcer ko ba nga xam ni ëllëg ci kanamu yàlla motadi bi du feeñ ci seen dossier waaye yiw bi rek ay feeñ ak ngëneel gi yonent bi ni ko jox naa la pikiir ba nga xam ni boo leen ko pikiiree suñ doon motadi sax seen motadi dana dem ba mujj dañ ci ñoom nekk ay qualité ci ñoom ndax bés bu xëy piqûre ba lumière la yokk ci ñoom te muy salaatul fatiha ca la cheikh wax nag ni wax nag ni kon lii mooy sauver àdduna waaye aaxiru zaman bu ñëpp demee ba jaaxle ba jaaxle ci lëndëm gu bare ba jaaxle ci bàkkaar gu bare ba jaaxle ci réer gu bare la leen mën a dindi ci ñetti problème yooyu mooy zikr salaatul fatiha bu ñu nangu ndax mooy sauver ruuxu jullit bi te gis nga li Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif santaane mais dafa nekk moom Cheikh en phase ak li borom bi santaane waaw inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi gis nga grandeur boobu waaw inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi xamoo yàlla munoon na wax ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima te baatu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi du ko ci fekk parce que c'est le créateur moo bind yonent bi mais dafa bëgg wane foofu grandeur u zikr bu jëm ci salaatu ala nabi julli ci yonent bi wala zikrullahi akbar waaw grandeur u zikr bu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax benn nit yàlla wax ni dafa gis benn mbokk mu ko feeñu mbokk maa nga ca barza nee na mu di ko laaj yiw yi foofu nu mu demee waaw nee na mbokk mi ni ko ñi fi indi woon yiw ñi ci bare ñi mànkale nañu ñii dem nañu ba yiw ba gis nañu ëllëg yowmal xiyam na muy mettee doyatule waaye ñenn daal naw naa leen mu ni ko ñan mu ni ñu indaale salaatul fatiha ñoom barele nañu ba ñu ngay wër ku mànkale ñu may la te ñu ngi barzax demaguñu yowmal xiyam te wax na dëgg wax na dëgg ndax gis nga malaan ban fay lal axtaab yi ñoo ko ñaan Cheikh Tijani Chérif malaan ban fay lal axtaab yi ñoo ko ñaan Cheikh Tijani Chérif waaw ñoo ko ko demandé xam nga lu tax ñu demandé ko am na ñoo xam ni seen dudd yépp dañoo sopp salaatul fatiha sopp lumière tariqa tijaniya waaye yàlla mayu leen occasion ñu dajeeg mu xaddam bu leen jox wérd bi wala ñu mokkal wérd bi ba adhéré ñu xëy rek génn àdduna axsaab yi nit ñi ak seen cofeel ñu yóbbaale ka barza bu ñu demee fekk ñu leen fa ñu leen jox wérd bi kon dana doon nit ñoo xam ni ci désespoir la ñuy dëkk te amoon nañu yéene te innama ahmalu bi niya kon nanu ñaan cheikh nu lal fi malaan biñ ko ñaanee cheikh Tijani Chérif mu may leen ko nu lal fa malaan di zikr naasiril haq bil haq mu may leen ko nu lal fa malaan ndax moom amul limite ban la gis nga di nga interpréter xam-xam boo déggul ndax majorité ba yëpp la leen sànk mooy topp rek ni bind nañu nàngam boo demee kay doo génn fii doo génn fële waaye yow sa bopp mën nga bañ a dépasser cent mètres ca barzak te malaaka jàppul sa mbagg mais am na koo xam ni mën na dem nord ba sud est ba ouest te kenn du ko laaj fa mu jëm waaw ndax yàllaay séddale noonu yàllaay séddale noonu te it espace intermédiaire yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais boo demee barza boo ca soxloo dara lu sa rox visité fa kayit ba di génne ca xat mi yóbba lay génne ca xat mi yóbba mooy Cheikh Tijani Chérif te ku dem barzak loo ko laaj la muy la mu lay wax mooy bëgg jege lumière yu yonent bi rox boo laaj loolu la lay wax rox boo demandé barzak ni ko lan nga gën a bëgg fii nga ne daf lay wax fexe jege lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool yonent yàlla Ibrahim confidence bi mu def ci digganteem ak boromam waxuma bi muy dund sax de mais bi mu génnee àdduna moom Ibrahim alayhi salaam yàlla yàlla dalal ko. ndax nee na xaritam la ibrahima xalilullah waaw yàlla daral ko yàlla teral ko waaye yàlla laaj ko ni ko comme sama xarit nga lan nga gën a bëgg pour ma defal la ko ibrahima ni ko nga fexe ba sama kër aljana dend ak bu muhammad waaw tey moo indi boo séenee buildinu yonent bi beneen bi ngay séen ci wetam yeneen ci yàlla ibrahim moo ko moom waaw te boobu yàlla moo ni ko comme sama xarit nga loo bëgg ma defal la ko waaw te boobu defal na ko teranga gu nekk mu ni ko li may ñaan mooy muhammad këram ak sama kër ñu dend waaw tey boo demee barzax building ba ngay séen nu ni la muhammad moo ko moom ba ngay séen ci wet bi ibrahim alayhi salaam moo ko moom moo tax rox ya fa dem yépp benn yitte kese lañu am nan la ñuy def ba jege yonent bi te loolu la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif facilité ci zikr jawharatul kamal jawharatul kamal xam nga lu tax Cheikh Tijani Chérif neex a àndal mooy ñu bari dañ leen di layal moom mu layal boppam parce que boo layalee nit mu layal boppam la muy layal boppam mooy ëpp solo te lan kay layal waaw Cheikh Jawharatul Kamal dafa ñëw ku ne layal ko nii la mel lumière yonent bi ci nekk mu ni ñi ma dénk ñi ma dénk fatku waaw may leen basira bu nu amee juróom ñaari perle ci malaan bi ñoom ñooy seede ni gis nañu yonent bi ñoom ñoo koy seede waaw ndegam nag ci àdduna lañ ko mën a seedee ni gis nañu yonent bi astantumalaak bu ñu demee ba barzak waaw te wax na dëgg wax na dëgg moom Cheikh Tijani waaw wax na dëgg waaw ndegam ci àdduna ci malaanu wazifa la ñu mën a seedee ni gis nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam astantumalaak bu ñu demee barzak ndax gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci àdduna moo gën a jafe gis ko barza waaw te loolu mystique yi xam nañ ko moo tax ñi déggul science boobu sax da ngay dégg ñu ni yonent bi kenn mënu ko gis te fekk yaa ngi dund ñoom dañu jàpp ni da ngay génn àdduna rek gis ko te fekk génn àdduna sax taxul nga gis ko fa la gën a yombe nag waaye taxul nga gis ko waaw am na ñoo xam ni dañuy wax ni ci xeetu yonent bi la ñu bokk ñoo ci boole seen bopp de génn àdduna nekk barzax ba yowmal xiyaam taxaw ba nu àtti leen ba ñu dugg fa ñuy dugg te duñu teg yonent bi bët waaw waaw te duñu teg yonent bi bët mukk waaw ndax moom ku ko fa gis rek texe nga waaw waaw ku ko fa gis rek texe nga moo tax seetal seetal moom yonent bi li mu ñaanal li mu ñaanal xeetam li mu ñaanal xeetam ci kanamu yàlla wax na yàlla ni ko sama xeet moom yonent bi ni ko ñi ma ci sopp waaw ñi ma ci sopp te di la jaamu waaw nga xam ni sopp nan ma muy dëgg te ñu di la jaamu ñi nga ci nattoo muur seen bët ci àdduna may leen bu ñu génnee àdduna bu ñu xippee rek gis ma may leen lool yàlla nangul ko ko waaw yàlla nangul ko ko moo tax ngay dégg nu naan ñi dul gis seen bët gumba bu ñu xippee dañuy gis yonent bi ma ni yonent bi bi mu koy ñaan daf ko ñaanoon ci ay condition dafa ni ñi ma sopp ñi ma sopp bokk ci sama xeet te di la jaamu waaw te mu leer ni sopp nañ ma te bokk ci sama xeet waaw te di la jaamu nag waaw comme muur nga seen bët ci àdduna nattu leen may leen bu ñu génnee àdduna rek bu ñu xippee ñu gis ko yàlla may ko ko waaw yàlla may ko ko seetal kado bu tol noonu waaw parce que boobu moom yëgoon na ni mbooloom rox ya nekk barza koo ci laaj lu muy ñaan mu ni gisanteeg moom ndax gisanteeg moom foofu mooy indi quiétude waaw gisanteeg yonent bi cheikh ni nag ñi ma garanti ni ñoom daañu gisanteeg moom ba saakoonteeg ñoom mu ni mooy ñi yóbbaale salaatul fatiha barzax bu ñu nangu waaw wérdu bu ñu nangu cheikh leen ko garanti waaw wérdu bu ñu nangu cheikh Tijani Chérif moo leen ko garanti nee na ñi ko yóbbaale wérdu salaatul fatiha bu ñu nangu nee na waxuma sax seen gént yeni gént yonent bi ci àdduna wala ña ca am basira di ko ca gis waaye ku ca génn àdduna janob yonent bi ndax dana nu rejeté lu ne ba mu des salaatul fatiha bu ñu nangu waaw lu ne danañ ko rejeté waaw gis nga nit dina tegle di julli di julli di julli julli ba fekk ni dafa am lu ko lal xëy na ngir sa la ko lal wala ma ngay tooñ wala ma ngay julli di wax lu yoonam nekkul mu génn àdduna yàlla rejeté ko waaw yàlla rejeté na fi koor ba tàyyi koor boo xam ni teguwul ci yoon bi yonent bi wax ni ca la war tegu waaw te muy def ko te yàlla tax nit génn na fi azaka tekk ci ngistal yàlla rejeté ko waaw nit dem na fi ba tàyyi màkk di def xaj te fekk moo ki demoon def tourisme benn la waaw moo ki demoon def tourisme rek visiter dellu si benn la waaye wér di salaatul fatih bu nu nangu ba noppi nu ni rejeté nan ko loolu mënul nekk ndax benn bun ci nangu rek mën na la sauver waaw moo tax bu la yàlla narul defar mën nga ciy jàng di jàng di jàng te doo am benn bun ci nangu waaw waaw Cheikh Tijani Chérif moo ko gaaral nee na benn salaatul fatiha bu nu nangu nee na permettre na nit ki buñ ko dencee mu mu xippi janoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw te foofu ñëpp moom la ñu bëgg gis looloo tax mu ni sansu tarixa tijaniya yamul ci nga dégg sens bi ak nopp mais faw nga exploiter deuxième phase bi te mooy fexe dégg ka ak sa rox gis nga am na ñu ko yàlla may am na ñoo xam ni seen rox moo soxla salaatul fatiha lu nu jaamu jaamu yàlla du leen doy tànk jëluñu wér du duñu am jàmm seen rox moo ko soxla te pourtant dañuy naafile dañuy def lu ne waaye da nga yëg ni seen rox dafa soxla salaatul fatiha ñooñu salaatul fatiha dafa déggoog seen rox waaw maanaam seen rox moo nangu moo nangu déggoo ak salaatul fatiha seen rox moo koy soxla ñoom duñu xam sax lu leen boole ci tarixa tijaan yi da ngay gis koo xam ni mësul woon am ambition ci dundam wala yaakaar ci dundam ni bés dana xëy mu toog ci malaanu wasifa di wasifa waaye day dem ba benn jamono day mel na bu bokkul ci tarixa tijaniya dafa am lu koy gaañ waaw nga dégg boo demee ca xakim ya ñu ni Cheikh Tijani Chérif moo la woo waaw ma ni woote ba jiitu na tey ndax woote ba ca alamul arwaax la woon waaw rox ba xëy na mooy mooy soogaa wuy si waaye fekk woote ba jiitu na ndax alamul arwaax la woon waaye ku mu woo rek mooy ku mu wóor moom Cheikh ni kii yàlla dana ko yërëm wala dana ko gërëm waaw moo tax mu ni sama ambition mooy yonent bi taxaw ëllëg ma présenté ko sama disciple yépp kenn ku yonent bi xool gis ci boppam maanaam gis ci ni kii jàng na salaatul fatiha jàng na jawharatul kamal te yàlla nangu na ko boobu la yonent bi boobu la yonent bi di xam ni li ko yàlla def muy le meilleur des êtres créés bàyyi na fi ñu ko ñu ko liggéeyal loolu ci njabootam waaw te Cheikh nee na loolu la loolu la décidé moo tax nag ku mu gis ni mënoo bokk ci milieu boobu looloo indi mu di la génn boo déggee ñu lay wax dox ci tarixa tijaaniyya mais dob bi lan la mooy cheikh bàyyi na la nga jéem a prouvé bàyyi na la nga jéem a bokk jéem nga jéem nga dem na ba gis ni yow mii kat mënatul ànd ak yow ëllëg ci kanamu yonent bi mu commencé tàyyelloo sa yaram waaw commencé tàyyelloo say cër commencé rocc lumière bi ci yow su boobaa nit ka day defa ni ci li ko neex moom moo bàyyi tarixa tijaaniyya fekk tarixa tijaaniyya ci boppam moo ko bàyyi mais du ko xam nag waaw boo bàyyee tarixa tijaaniyya da ngay defe ni yow yaa xëy bàyyi tarixa tijaaniyya léeg-léeg nga dégg sax ku la wax ni dafa dem ba yàgg kat mujj yeewu xam ni tarixa yi nangam nangam ma ni ma ni dem ba yàgg kay mujj réer la waaye du mujj yeewu waaw ndax dem ba yàgg mujj yeewu mooy nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy le meilleur des êtres créés waaye tànn na xat mi bu ko fi nekkal muy Cheikh Tidiane Chérif te dara du intérêt lu dul defar rox waaw loolu mooy dem ba yàgg yeewu waaw su boobaa nag boo yeewoo na ngay def mooy jël salaatul fatiha commencé zikr dem ba yàgg réer nag mooy nekk ci salaatul fatiha di zikr waaw nekk ci wazifa di wazifa nekk ci tarixa bi di góorgóorlu dem ba xëy rek iblis romb waaw iblis romb bu ñëw def sa xel yow li nga nekk ndax ndax baax na ndax du bidaa ndax du la sànk au lieu nga réfléchir ci nitu yàlla yi yi adhéré ci tarixa bi ak seen lumière na mu toll waaye ci benn laps de temps da ngay fàtte ba defe ni ñooñu yaa leen ëpp xam-xam lu jar di bàyyi xel lu jar di bàyyi xel gis nga léeg-léeg nit toog ba yàgg du réfléchir du xalaat jékki saa ni xaaral ma bàyyi wérdu bi moom bu bàyyi wérdu bi xanaa dafa fàtte ni ku mel ni Cheikh Al Hadji Omar Al Fouti ëpp ka jàng ëpp ka xam-xam ëpp ka leer mi ngi ci wérdu wi na xalaat loolu. su bàyyi wérdi wi na xalaat ku mel na Cheikh El Hadji Malick ëpp la jàng ëpp la xam-xam ëpp la leer gën la sell gën la jege yàlla mi ngi ci wérdi wi ku mel na Baye Niass noonu ku mel na Serigne Babacar noonu ku mel na mag ñu baax ñëpp noonu nan ngay xëyee benn bés rek xalaat ni ñooñu yaa leen ëpp xel wala yaa leen gën a xam yàlla rek bàyyi wérdi wi moo tax xalaat bi lay génn ci wérdi wi na leer ni Iblis. moo koy dugal sa nopp pour douter loolu waaw iblis moo koy dugal sa nopp pour douter loolu waaw waaye boo toogoon ci benn laps de temps rek nga xalaat ni ñii kat ñoo la ëpp cër téeméeri yoon ca yàlla bu dee jàng téere yi ngay jaay ñoo la gën a jàng téere bu dee jaamu yàlla ngay jaay ñoo la gën a mën a jaamu yàlla te ñoom ñoo ñëpp kat kenn ku ca ne ma nga ca wér bi kooku da nga ciy def waaye nag mënoo ci des lu dul borom wérdi wi desal la ci waaw borom wérdi bi desal la ci waaw te itam gis nga ñu bari li ñuy faral di ñaan da ngay dégg ñu ni tarixa tijaan yi dafa fiir moo tax del ñaan rek cheikh tijaan yi chérif desal la ci ma ni cheikh indi na condition yam la ciy desale nee na condition islam yi benn bu ca nekk na nga ko respecté à la lettre waaye beneen bi nga war a gën a éviter nee na mooy ŋàññi nitu yàlla waaw cheikh nee na bu amee bu gën a gaaw bu lay génne bu lay génne ci tarixa bi nee na boobu la waaw ndax nee na moom du moom mooy ñëw di la génne mais seen leer ñoom ña nga ŋàññi moo lay puus génne la tarixa bi waaw seen leer moo la cay génne mën nga ci génn nag te doo ko yëg waaw waaye boo ca génnee la lay yëgal dëgg génn nga ci mooy la ñoo tuddee essence mystique salatul fatiha dootul leer ci sa biir rox waaw boo ñeme woon yàlla da ngay gën a ñeme yàlla waaw boo ni woon doo jaamu yàlla sa yaram day gën a tayal jaamu sa jëf yépp ngistal lay doon waaw sa jëf yépp ngistal lay doon booy wax ngistal nga ciy jóg waaw boo yëgee sax ni boo waxee du génn doo wax waaw te dal nañu bari fu mu ne waaw dal nañu bari fu mu ne minute bu ne nu toog ba si fa ji leen na ngeen def nangam te doo dem bis malaan ba seen leen waaw waxuma sax mu dellu ci yaa ayyuha allazina amanu li ma taquluna ma la tafalu waaye day dellu rek ci nit koo xam ni moom réellement li muy woote li muy woote du ko def te danger la ndax Cheikh nee na su la commencé dal feebar boobu nee na sa jëf yëpp ngistal lay ne waaw di nga santaane lu ne di nga wax lu ne waaye kenn du la mës a fekk ca la ngay santaane nga di ko def moo tax nag ñu ni dem jël wérdu bi jël wérdu bi wérdu tijaniya ñu jox la salaatul fatiha wax la nañ koy def jox la jawharatul kamal wax la nañ koy def jox la istixfar jox la laa ilaha illallah gis nga bés boobu kontaante bi ngay àndal tée ko nag ba génn ak moom àdduna moo ko gën a jafe tée ko ba génn ak moom àdduna moo ko gën a jafe loo tax Cheikh doon wax bu ngeen di jël wér bi di leen tànn di leen wëri même s'il le faut di leen gëstu même ci ñi ngeen koy jël mu ni ndax ci sama xadara am na nitu yàlla yoo xam ni soo jëlee ci ñoom wérdi bi boo demee ba tàyyal ñu taxaw sa biir néeg guddi wax na nga nga nga góorgóorlu nga góorgóorlu am na ñu ko mën di nga dem ci tarixe bi ba sax day mel na ñoom sax nga gën a ragal ka yàlla ndax loo def rek yaa ngi xalaat ni yëg na waaw kooku bu sa kilifa tolloo foofu bu sa kilifa tolloo foofu nga xam ko yu bari dootoo ko ñeme xam waaye kilifa goo xam ni mën nga fanaani def lu la neex yenn doo def lu la neex mu leer ni la ci yaqin ni yëgu ci dara du waxtaan ba tudd lool kooku daf lay encourager ci yoon boo xam ni bés bu ne nga def lu la neex waaye léeg-léeg nga dem ba yëngal dara ni yëg na ma waaw te booy tëdd léegi di ko gént mu la koy wax waaw wala léegi mu feeñu la wax loolu loolu loolu fa la sàmm taalibe yam cheikh nee na bu ngeen di jël wérdi wi nag comme dafa diis te da ngeen di bañ mu rëcc seen loxo seet leen ñu mel noonu waaw ndax moom noonu la meloon moom cheikh Aliou Harazim it noonu la meloon ñëpp xam nañu ko mag ñu nu xam fii ñoom noonu la meloon waaw ku ci ne ci ñoom daf lay surveiller ba da ngay mujj da ngay mujj sàgg tiit sàggane wérdi bi du ngir wérdi bi de ngir ñoom. du ngir wérde bi mais ngir ñoom seen bopp waaw ndax réalité boobu réalité boobu mooy bi am solo waaw réalité boobu mooy bi am solo waaye gis nga it am na kilifa yoo xam ne àgg nañ ca dem ba gis ni sax taalibe bi motadi bi ëpp na ñu ñaanal ko intervention pour mu dellu si waat mot te taalibe bi du ko yëg waaw mais ñooñu ci xadara ci xadara Cheikh Tijani Chérif ñu néew lan ci cheikh nee na booy jël wérdi wi nee na demal ci ñooñu ndax du fookaay waaw parce que gis nga xelu doomu aadama xam nga lam ma waxoon nii li yàlla wax ci alquran waaw wal asri inna al insana la fi xusrin ba mu ne al insan mooy koo xam ni définir guñu ko gis nga xelu doomu aadama moo naq di mu jàpp lumière ba noppi di dox ak moom chaque jour lu jafe la waaw ndax lumière boo ko yoree di des iblis mi ngi xool moment bu nekk nan la ci mën a rocc tuuti waaw ngay dox tuuti rek mu rocc ndax lii jar na ko ndax ndax ndax yow génn goo àdduna yow boo moytuwul dese na la fi cinquante ans yooyu ngay xalaat waaw léeg mu ni yow wutal alal ba noppi soo koy jublu ci lii mu ni booy wut alal kan moo la wax di nga am ak kan moo la wax ndax alal jooju da nga ko jëriñoo waaye benn bu ca ne iblis mooy branché pour jéem la décourager su ko defee nag boo woyofee bopp rek boo woyofee bopp dootoo xam fa nga jëm boo woyofee bopp dootoo xam fa nga jëm boo xamatul fa nga jëm nag li lay bàyyi loo wérdi bi dafay yomb moo tax cheikh ni li lay dimbali pour pour nga mën a téye lumière nee na nga seq kak koo xam ni koo xam ni benn nit yàlla daan na ko wax ndeysaan dafa daan wax ni gis nga bu ngeen jëlee bu ngeen jëlee këriñ ngeen dugal ko ci biir kaasu ndox ndax di ngeen gis këriñ bi ñu ni ko fu nit tollu day janoog moom mu ni ku ma jox wér du ku nekk noonu lay janogee yow waaw xam nga kooku surveillance moo tax muy wax kooku surveillance moo tax muy wax waaye gis nga ku yàlla ku yàlla bëgg dimbali nag muy mucc foofu waaw waaw loolu la mu yéeme yéeme ku yàlla bëgg dimbali rek yaay sauvé waaw yàlla bu la bëggul dimbali jant bi buñ ko wàcce woon sax bu la neexee nga wetti ndax nun bi ñuy débuté daayira bi lu mel noonu dal nanu waaw Cheikh Ibrahima Ifra mi ngi fii xam na li may wax waaw jox nañu jox nañu benn soxna wért waaw mu yore ko fonk ko fonk ko jékki saa commencé di lazim di waxtaan dem quelque temps rek di lazim di waxtaan xam naa gars yi ñoo ni ko nin lay waxee lazim yëpp ak doo wax ak waaw condition yee ca nekk ak ay nax kese la waaw mu mujj di laazim di waxtaan ma woo Cheikh Ibrahima Ifram mii waaw soxna saa nga ca njoloteen maa ngi ca Pikine ma ni ko demal wax ko démb ci ngoon ci tàkkusaan ba muy laazim dafa doon wax waaw Ifram mii dem waaw wax ko ko ba mu ko ko waxee dafa tiit waaw ndax foogoon na fa mu toog di laazim di waxtaan kenn mënu ko dégg waaye gis nga mu ragal tuuti rek benn daayira ñëw ni ko yow ifra xamoo moo la doon espionné moo ko ko wax te li gën a grave ñi ko découragé kat nee nañu daayira tijaan lañ ñoo ko découragé waaw mel ni ñoo ko encouragé ci continuer sa wax yi ay naaf kes waaw mu continuer di wax di wax ba al lu ma ci mën parce que la ma mënoon avertir def naa ko pour wax la ni nit dafay tollu jamono doo déglu nit kiy xelal sa nopp lu lay yàq da ngay déglu sa rox mu defar la ci yàqin waaw parce que iblis bu mënoon jekku ñëpp wax na ko Moussa moom iblis yeneen ci yàlla Moussa alayhi salaam ñoom ñaar dañoo waxtaan muy wax ak iblis fekk muy xool digganteem ak yàlla waaw digganteem ak yàlla moom iblis ndax dafa xëy rek ni Moussa yow da ngay wax ak yàlla ci tuuri Sine Moussa ni ko waaw. waaw iblis ni nga léegi de dama bëggoon booy wax ak yàlla comme man xam naa ko nga laaj ko ndax amul condition pour nu juboo Moussa ni nga kooku de moom bu ma dematee tuuri si nii danaa ko ko wax waaw ba mu demee wax ko yàlla yàlla ni ko man ak moom lu nu boole sax moom du dara su jóotal ci aadama rek mu bañ léegi ni ko na seet bàmmeelu aadama def su jóot ci ñu juboo bi ko Moussa waxee Iblis Iblis dafa ree di dëgg-dëgg daal borom bi yàpp dama Adama di dund su jotuma ci mu dem ba génn àdduna may wër bàmmeel ba di bëgg a jot man nag moom du nu juboo abal Moussa ni que lii la yàlla bëggoon mooy bëggul jubóog yow moo la bind moo la sàkk li nga yées yées yëpp moo la sàkk xam na la mooy def na nga ko sori waaye Iblis ni ko nag comme dox nga ci tànku jàmm naa la dimbale yenn ci sama pexe. wax ko ci ñett yu am solo waaye bi ko ñeenteel mooy iblis xamal ko ni ko su ma mënoon man nit ku nekk ma dem ci yow dévier la dévier la ci siraatal mustaqim naa ko def waaye su ma taxawee sama jëmm kenn du ma ñeme moo tax danaa fexe utiliser doomu aadama mu yor sama jëmm yor sama kàllaama ma yabal ko ci nit mu wax ak moom ci la Moussa ba mu ñëwee ni xeetam def leen attention ci ñuy wax ak yéen suñu waxatee segg leen ndax iblis ay wax wala ñoom ñooy wax waaw ndax nee na ci armam la bokk waaw gis nga loolu boo ko xàmmewu même boo nekkee ci tarbiya doo dem waaw tarbiya dëgg ki amee yàqin mooy ki dem ba mën a xàmme kiy wax ndax ci làmmiñu iblis lay waxe wala moom réellement mooy wax kooku ku ko ku ko xàmme rek sax mucc nga kooku ku ko xàmme rek mucc nga mais ñu bari looloo leen sànq xàmme wuñ ko waaw ndax léeg-léeg nga nekk ci leer wala nekk ci dara jékki saa naan man kat benn kilifa ama woo wax ma kilifa ga mën na la woo wax la waaye est-ce que kilifa gaay wax waaw jar na di laaj waaw jar na di laaj parce que yàlla ni mu fexe ba ku nekk wéet ak bàmmeelam ëllëg ca barzak noonu la bëgg ku nekk wéet ak rooxam rooxam seede ko. te gis nga bakkan moom mën na bañ a xàmmi fa mu jëm waaye rox buy yokk ci lumière xam na ko buy wàññeeku ci lumière xam na ko waaw moo tax am na loo xam ni doomu aadama xëju ci nit ki rek moo koy jugeel boppam waaw looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani Chérif wax ni gis nga lal bi ngeen di lal malaan di wasif lu ngeen di njëkk jàng ñu ni fatihatul kitab mu ni lu ngeen ciy teg ñu ni istixfaar mu ni istixfaar boobu am na ca malaan ba ñoo xam ni amuñu bàkkaar wala bàkkaar ba ñu amoon yàlla baal na leen ko lu tax ñuy jàng istixfaar axtaab yi ni ko wàllu reconnaissance la Cheikh Sogay nangu li ñu wax wàllu reconnaissance maanaam mooy yàlla may na la nga sant yàlla ca lam la may baat bi ngay toog naan astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum mën na nekk ni ki koy wax yàlla jéggal na ko waaye jéggal ba mu ko jéggal te mu xam ni moom ci motadem mën na xëy def beneen toor baalu boobu muy baalu jéggalu boobu muy jéggalu mooy jënd la mu naroon def ëllëg li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma taaxar ca suratul fath moo tax sensu jàng istixfaar ci malaanu wasifa am solo nit ki bàkkaaram mën na sell am na ñoo xam ni foog nañ ni sax amuñu bàkkaar boo leen ne def leen doggu istixfaar dañuy jaaxle fekk ni istighfar ba yow en tant que être humain am nga côté boo xam ni moté di mi ngi ci yow ëllëg mën nga tarxiis baat ba ngay jàng tey yàlla mën na ca jaare ba tarxiis boobu mu far ko te fekk defagoo bàkkaar ba cheikh ni wàllu reconnaissance ba nag solo ba lool la waaw mu ni lu ngeen ciy teg nu ni salaatul fatiha mu ni salaatul fatiha mooy bi yàlla utilisé ca laylatul mi'raj julli ci yonent bi waaw salli ala muhammad il fatiha li ma uxliq waaw ci xaqiqa lépp lu tëju woon moo ko tëj waaw wal xaatimi li ma sabaq ci xaqiqa lépp li ko jiitu woon moo ko tëj waaw anasiri lxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim yàlla julli ci yonent bi jaaree ko ci seede ci jaamam waaw ba tax yonent bi li mu am kenn amu ko waaw li mu am kenn amu ko toll foo xam ni sa borom julli ci yow ngir seede la te li nga am yépp moo la ko may waaw mu ni li ngeen ciy teg ñu ni laa ilaha illallah cheikh ni yonent yépp loolu seen mission mu ni yonent yi ñëw yépp benn mission la ñu am mooy laa ilaha illallah ñu tudd ko maanaam wéetal yàlla te muy dëgg nag waaw mu ni lu ngeen ci teg ñu ni jawharatul kamal mu ni mooy sama preuve jawharatul kamal Cheikh Tijani Chérif nee na mooy preuve am waaw moo tax ku xam baxaru yi ci ne ak réalité baxaru yi di nga xam ni waxuma la preuve waaye ëpp na sax preuve waaw ndax nee na mooy liaison mystique sama digganteeg yonent bi loolu la Cheikh wax xamuloo ñaari liaison la ci tariqa tijaniya gis nga salaatul fatiha mooy liaison spirituelle diggante Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ak yonent bi jawharatul kamal mooy liaison mystique bi diggante Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari liaison yooyu la moo tax nag boo nekkee di jàng ñaar yooyu ko ëppalewul mënatu la ëppale loo xam ne liaison spirituelle la diggante yonent bi ak Cheikh Tidiane muy salaatul fatiha jawharatul kamal di liaison mystique diggante yonent bi ak Mawlaa Cheikh Ahmada Tidiane yow taalibe bi ñu jox la ñaar yooyu ni am nga autorisation wu jàng ndax garanti nañ la ko ba boo ko jàngee mu bañ la gaañ mu yokk la lumière nga di ko jàng xoolal fi sa cër di toll ci jàng boobu nga koy jàng waaw cheikh ni mooy sama preuve parce que moom laa wax ni sama taalibe ya ma may basira ñu mën ci ñoom jàng juróom-ñaar gis yonent yi ñu yor surru ya nag mën ca jàng lan cay jàng lépp waaw waaye gis nga boo ko maîtriser moom jawharatul kamal da ngay yëg ni lumière bi dafa intense intense ba da ngay comprendre nag da ngay comprendre réellement yonent bi dëgg-dëgg xaqi xam lan la waaw boo mu ne jawharatul kamal laa wax lumière bu intense la da ngay dem ba comprendre ni réalité yonent bi dëgg-dëgg lan la waaw moo tax am na fooy toll ci sellte gis nga am na fooy toll ci sellte boo doon nelaw boo doon nelaw di dal gént di jàng jawharatul kamal faw nga yeewu waaw xam nga lu tax lumière bu intense boobu mënul ànd ak nelaw waaw tolluwaay la nag waaw tolluwaay la waaw am na ñu bari ci xadara Cheikh Tijani toll noonu foofu daf leen di sax jaaxal dañuy gént di jàng jawharatul kamal rek fa fi yeewu waaw fekk ñu ngi woon ci biir nelaw tolluwaay la dañ fay toll waaw kooku dañ fay toll waaw ndax dina dem ba dootul nu nangu. dootul nag nga tëdd di dallu nekk ci monde baatin ba noppi di ko fa jàng waaw ndax loo jàng xëy bu ñoo koy seet moo tax boo ko jàngee rek ñu yëkkate la waaw nga di ko commencé mystique yi xam nañu li may wax waaw léeg-léeg tolluwaay la bu nit di bu nit di bu nit di toll waaw dimension mystique la dimension spirituelle la waaw waaye Cheikh la ko yitteel dëgg la ko yitteel dëgg mooy pratique du zikr nee na boo nee adhéré nga ci tarixaam mu enregistré la te nee na doo wér nee na adhéré gu xamoo foofu la dàqee ki wax ni ki wax ni moom jël na wér waaye daf ko aj foofu la ko Cheikh Tijani dàq ki wax ni jël na wér waaye dafa aj wér bi foofu la ko Cheikh Tijani Cherif dàqee parce que nee na boo dul pratiquer zikr moom gisagul ni adhéré nga ci tarixaam waaw te léeg-léeg pour neexal la. te li nga dégg kilifa wax la ko waaw waaw man daf may jaaxal sax ndax dama gisul cheikh ci tarixam fekk na fu mu ciy neexalee nit waaw waaye toll nañu foo xam ni réew mi léegi boo amee daraja wala nga am alal yow daal guddeeg bëccëg kàddu yu neex rek ngay dégg man loolu jaaxal na waaw ñaar boo ko amee ci réew mi alal ak daraja bu la neexee sax yow léegi daana ko tëdd rek di naan sa nja ndax lu la neex rek ngay dégg. ba demee ci kilifa sax ni ko dama bëgg jël wér waaye aw ma jot mu ni waaw mën nga ko jël après nga aj ko waaw ba nga am jot waaw bëgg naa la def taalibeem rek waaw mën nga ko jël après nga aj ko ba nga am jot loolu fan lañ ko bind ci tariqa bi jël wér ba noppi aj ko ba nga am jot boo amul jot ku la jël loo wér waaw borom neex lewu boo jëlee wér nee na demal ca malaan ba wasifa laazima loolu la wax waaw ak daraja joo mënta am Cheikh Tijani Cherif dafa ni daraja joo mënta am moo tax gis nga muy tere muy tere moom Cheikh ñu fekk ñu wër malaan malaan bi def espace nga ñëw bañ a toog foofu xanaa dem toog ca gannaaw daf koy tere waaw nee na bu ñu lalee malaan tànk am na fu nit mën a toog boo ñëwee gis ni foofu bidd na toog fa waaw bul toog ca gannaaw waaw xam nga lu muy bañ mooy nit darajaam toll foo xam ni day fekk ñu toog ci malaan mu xeeb leen di leen wan ni tollawul ak ñoom dem toog ca gannaaw kenn du ko def. bokk na ci ya muy tere bokk na ci ya muy tere ndax moom lu mu gëm nee na bu ñëpp toogee ci malaan ñu ni bismillah ñu tàmbali wasifa xel mu dal kaka fay am mooy mu jàpp ni ñu fa toog ñëpp ak nu seen daraja toll samay taalibe la man may diriger waaw mu ni may diriger boo ko xamee rek jeex na waaw boo ko xamee rek jeex na waaw te loolu mooy réalité bi am solo. loolu mooy réalité bi am solo du tee nag la muy maye maye na ko waaw du tee moom Cheikh Tidiane la muy maye maye na ko waaw maye na lu nekk waaw waaw lu nekk maye na ko muy cër ci tarixa bi waaw may na ni du nangu ëttu zikr bi nit ñëw teew fa mu nangu ëttu zikr bi ngir jëmmi nit kooku loolu am na ci xadaram maye na ni du teew wala yonent bi du teew nit ñëw teew mu teew ngir nit kooku waaw loolu am na ci xadaram waaw benn bu ci nekk cër la yoo xam ne maye na ko moom tarixa bi yiw yi ci nekk même bu ñu toggoon yiw yi di ko expliquer nit day defe ni dañ koy propagande pour mu dugg ci tarixa bi ndax yiw yu bari ndax yiw yu bari waaw ndax lu ci ne garantie la lu ci ne garantie la waaye gis nga garantie bi ëpp solo te bu nit adhéré ci tarixa tijaniya ñu wax ni am na ko mooy garantie nga nekk wëli xam nga nun boo ñëwee sunu xaddara ci Medina Cheikh wëli yu day dem ba dafay mel ne rek maanaam dugg si boutique bi jënd ndox naan waaw fii boobu wax wëli yu laa sax gars yi dañ lay xoolaat waaw waaye ku xam wëli yu na mu toll xam nga nag wëli yu fi bare xam nga wëli yu fa mu bare boo demee ba naan wëli yu laa gars yi dañ lay xoolaat wala boo déggee ñu naan diw dañ koy jañ wëli yu gars yi dañ jañ wëli yu dépassé na ay wàllu jañ wëli yu wax wëli yu parce que Cheikh neen boo jëlee wér bi ñu nangul la wëli yu nga waaw buñ la nangulee salaatul fatiha wëli yu nga waaw léegi nag wëli yu la ñu bari xàmmewu mën nga nekk wëli sax même bañ ko xam waaw gis nga nit dina nekk wëli fekk xamu ko am na ñoo xam ne bu ñu demee ba génn àdduna la ñuy xam ne ñoom wëli lañ dañuy jóg rek di jaaxle ñu ne ah yéen kat dem leen ca rangé wëli yee ngeen taxaw ndax wëli yi ngeen keroog lañ koy xam am na ñoo xam ni dañuy dem ba nekk ci sukuraat mu dese leen ay minutes ñu soogay am fatu waaw xam ni ñoom ndeke réellement wëli yi lañu am na ñoo xam ne aussi dañ koy xam fii waaw am na ñoo xam ne dañ koy xam fii ndax wëli yu dëgg-dëgg taggam dëgg li ñuy taggee wëli yu dëgg mooy liaison mystique am ak liaison spirituelle am diggante xayb ak shahada day mel na diggante dox fii ak dox nit ñi fii benn lay dox loolu lañ koy xamee waaw moo tax nag boo jëlee wérdi bi mu nangul la moom ñu ni nekk nga wëliyu léegi nag mi ngi des ci ban cadre ak ci ban fatt waaw waaw ci ban cadre ak ci ban fatt waaw waaye ñu ni nag nekk nga wëliyu waaw muy lu jafe waaw waaw muy lu jafe mooy fexe ba axiru zaman àdduna lëndëm yow nga mën a xaritoog sa borom lu jafe la jamono ji boo génnee gis ni àdduna di doxe ku la ni nit mën na fi nekk xaritu yàlla sax da ngay jaaxle waaw ndax boo génnee balaa ngay dox plus de cinq cent mètres même yow boo dee doo nitu bàkkaar li ngay dajeeg ci bàkkaar kenn xamul nu mu toll waaw boo taalee télévision bi noonu boo taalee rajo yi noonu boo demee ci conférence religieuse yi noonu fooy mucceete conférence religieuse ya nga daan defaroo léegi da nga fay dem di fa dégg loo xam ni boo yëgoon sax bañ fa toog waaw kon léegi fu nit di mucc pourtant yonent bi prédiroon na ko ne woon na place yi gën a sell mooy jàkka yi waaye axiru zaman dina dem ba jàkka yi nekk lii ya nga xam ni moo gën a yomb pour nit yàqu ca wala yàq moroomu jullitam waaw te léegi da nga koy gis waaw da nga koy gis xeexoo yeeg xëccoo nodd yàq jiite wasifa yi xuloo lu nekk waaw am na ñoo xam ne même ci jiite wasifa jaral la leen xuloo waaw waaw yaay jiite maay jiite soo paree nii ngay ñaane doo ñaan ni ñaanu wasifa kañ la mës a nekk problème mu xulo wasifa ku mu neex pare wasifa ñaan ci barke sëriñam barke wasila amul benn problème waaw ana problème moo tax sax ñu ni moo tax ñu ni ci xadara tijaani bu dee ñu daje ñëpp bokkuñu kilifa te ñoo bokk xadara tijaan yi kii ñaan na ñaane ci barke Mawlaa Cheikh Ahmada Tijaan yi ñu bokk ko moo tax loolu xel la moo tax ñu ni xadara tijaan yi bu ñu dajee ñu ni kii këru tijaan ya nangam la bokk kii këru tijaan ya nangam la bokk te bokkuñu kilifa te ñoo bokk mala ñu ni kii ñaan na ñaane ci barke Cheikh Tijaan yi su ko defee mu yóbbaale ñëpp waaw su ko defee boo defee noonu jàmm daal di am waaw ndax Mawlaa Cheikh Ahmada Tijaan yi Chérif nee na. taalibe bi mu gën a naw nee na mooy taalibe bi nga xam ni du yàq mukk deru moroomu taalibe cheikh nee na kooku la gën a naw waaw cheikh nee na taalibe boobu la gën a naw mooy taalibe boo xam ni du yàq mukk deru moroomu taalibe waaw waaw moo tax daf ko interdire daf ko sax tere waaw te loolu bu ñu demee ba axiru zaman dafay commencer di raar waaw dafay commencer di raar moo tax li am solo te jara bàyyi xel mooy tarixa tijaniya grandeur bi mu amoon démb ba léegi flambeau bi dafa gën a jëm kaw mysticisme bi ci nekkoon tey la ci gën a nekk spiritualité bi ci mag ñi amoon tey lañ ci gën a am xam nga li des mooy xam ci ban yoon nga koy jaare te tegu ca yoon waaw waaye dara changé wu ci dara changé wu ci waaw Cheikh daan na wax sax balaa sama lumière di ëpp doole mooy nu nu lumière manqué na waaw nee na bu nee lu bu nee lumière manqué na nee na projecteur ba ak lumière ba yëpp ca laa leen di sànni ci jamono te wax na dëgg waaw jamono axiru zaman xamoon na nam mel waaw ndax nit yàlla yu bari jëluñu woon risque waxuma ne sax dox mission ci axiru zaman mais dund ci axiru zaman waaw waaw Cheikh Tidiane nag ni bu boobaa ca la ndimbal ba di ñëw waaw waaw nee na ca la ndimbal ba di ñëw bu ndimbal ba ñëwee nag ànd ak leeru salaatul fatiha waaw kuy defaru ca ngay defaroo waaw te kuy defaru it yaay seede sa bopp kenn du la seede waaw moom loolu la am amul leneen waaw moom Cheikh Tidiane Chérif loolu la am amul leneen waaw moo tax li ñuy ñaanal ñi koy liggéeyal toujours ngay dégg ñu ni yàlla nañu ko yàlla fayal moom Cheikh rek moo jar ñu ñaanal ko lool waaw waaw ndax yàlla fay na ko ba noppi waaye ñaan la boo xam ni boo ko ñaanee sa bopp lay dellu si gis nga benn mag dañu mës di waxtaan xakim la nag mu ni ma xam nga lan mooy càttu néew mu ni ma néew sax dañ koy cat waaw mu ni ma néew dañ koy cat fekk boobu may waxtaan ak moom ci li ma doon waxtaan ak moom lu ma xam la ndax dama ni ko nitu yàlla yi ma ni ko nitu yàlla yi yàlla jox mission yàlla aar na leen ci bépp bépp loo xam ni dañ leen koy def bu ñu leen defee fétiche yàlla aar na leen bu leen defee magie noire du leen jàpp ndax na waa monsieur koy dindi ma ni ko buñ leen liggéeyee du leen jàpp ma ni ko waaw te mag mi xakim la di ma ni ko waaye lu tax buñ leen catee mu jàpp leen mu ree ba yàgg ni ma cat nan lay jàppee nitu yàlla ma ni ko cat a tax nitu yàlla yi niy cat lu bari dañuy soj ma ni ko seen soj yi cat la waaw lii mu wax tey bu waxee wax ja xam-xam nangam nangam ma ni ko mooy def ba jàpp seen baat mu ree ba yàgg ni ma xam nga nag luy catu néew catu néew ma ni ko néew doon fay cat mu ni ma waaw mu ni ma mooy mu génn àdduna nee na nu ni ki jarul ñaanal ndax dafa baax mu ni ma loolu mooy catu néew mu ni ma mooy mu génn àdduna ñu ni ki ki jarul ñaanal nan dem suñu yoon ndax dafa baax ma ree mu ni ma gisoo yàlla nii yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima te yonent bi lu muy soxlooti ba pare yàlla di dig la ñuy julli ci moom ba léegi waaw ba tax buñ ko ko ñaanale ci yow lay dellu waaw ba tax ma ne xam nga tey boo toogee nii yàlla yàlla fay Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani yàlla fay na ko ba noppi waaye li nga koy ñaanal ci yow lay dellu waaw te loolu mooy sens bi waaw loolu mooy sens bi dëgg-dëgg pour wax la ñoom xakim lañ mag ñi ku ci nekk ci ñoom ñooñu dañu dañu seen xam-xam ëpp na waaw seen yar ëpp na waaye ñi ci bari ci ñoom yàlla dénk leen xikma ba wax waxatuñ waaw ndax lu tax waxatuñu dañu dem ba ñëpp taal rajo di wax ñu mujj noppi ñu mujj noppi ñoom waaye noppi te teewul ñu xam li ñu xam xam li ñu xam mais kenn du ci weccoo Mawlana Cheikh Ahmad Tijani ak leneen kenn du ci weccoo Mawlana Cheikh Ahmad Tijani ak leneen. koo ci gis rek mu wax la ni salaatul fatiha moo ko defar te bu la nettalee fi mu jaar ba salaatul fatiha defar ka yow doo bëgg lu dul rek jaar foofu te sens bi tey mbooloom ñi fi nekk ñëpp am nañu sens boobu ndax ku ci ne yaa ngi sa kurus ku ci ne yaa ngay zikr salaatul fatiha li ci des mooy ku nekk fexe jëriñu ci jëriñu bi mooy pratiquer jëriñu bi mooy pratiquer man moom lay digal sama waa xadar yëpp. gis nga ñu bari ñëw kalaame ma boole ma fii jàkka jee jubawuñu boo demee fee nangam nang ma ni ku la yebal ca jàkka ji jubawuñu xamuloo ni ñaari nit mën nañu lal mala waaw ñaari nit mën nañu lal seen malaan wasif dem ca jàkka joo xam ne bu ngeen wasifaa ba noppi di xeexoo ak di xulo mais toog sa kër ànd ak sa njaboot lal sa malaan moo ko gën waaw ndax boo fa demee di xuloo tamit bu yàggee nga jëli ci loraange waaw waaye da ngay gis koo xam ne lu mu ko jaral dana dem xuloo ji dana dem xeexi te loolu jaru ko waaw ñaari nit ñu am pas-pas mën nañu lal seen malaan wasif waaw dem di xeexoo ci ëtt boo xam ne ku ne da yàq sa deru morom jël sa malaan lal ko ak ña nga déggool ngeen wasifa seen wasifa su ngeen paree ñaan seen ñaan waaw ndax yàlla yaatal na suuf te Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaani it nangu na kiy sàkku yiw wax ni lii la bëgg ci yiwam Cheikh ni ko jaaral fii am ko mu jaar fa mu ko joxañ mu am yiw ba muy soxla loolu mooy teraangaam waaw kon yàlla nañu yàlla nañu xiir ci teraangaam waaw dañu ne woon bu ñu ñëwee ci guddeem rek ñu fexe ba jël waxtu rek barkeelu ci moom waaw ndax mooy sunu bunt ci yonent bi te wa atu buyuta min abwaabiha waaw mënuñu dem mukk ci yonent bi te jaaruñu ci Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif waaw ndax li ñu yóbbu ci yonent bi tey jii ba ñu xam ko Cheikh Tijani Chérif la waaw kon ñu ngi koy sant waaw ñu ngi koy remercier waaw waaye ñu ngi ñaan mu yàgg ñu taataan ci lumière am waaw dellu itam di remercier njaboot gi fi teew yépp ci Medina Cheikh Tijani Chérif waaw ci bérébu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani waaw waaye ci leeram gi nga xam ni itam ñu ngi ci weeru ku tedd di yonent bi waaw waaw muy weer boo xam ni lu ne jar na ko ci ñi ko xam weer boo xam ni lu nekk jar na ko waaw waaw ci ci ñi ko xam nag laa wax waaw su ko defee ñu xam ni cadre gàmm cadre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la cadre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ndax man wax naa ni gis nga débat yi xew léegi yëpp amul benn bu ci am solo waaw kii toog naan la bidaa la kii naan la du bidaa kii naan bidaa bu rafet la kii naan kenn mënu ko rafetal amul njëriñ ku ci mën gàmm yonent bi ñëw sa tànt amul bidaa yonent baa nga fa ku yonent bi ñëwul sa tànt la nga toog di xulo jaru ko jaru ko parce que kii gàmm yonent bi ñëw ci tàntam kay kooku yonent bi ko encouragé waaw te mag ñi amul kenn ku ci sanc gis nga Cheikh El Hadji Malick mi nga xam ne moo sanc gàmm bu ci déggoowul ak woon yonent bi du ko sanc mukk waaw waaw ñoom duñu kër yi mukk lu yonent bi bokk waaw moo tax ku am yonent bi am Cheikh Tijani am leer bul werante ah yoral sa kurus rek te nekk ci sa leer waaw ndax looloo lay jëriñ waaw yàlla nañu ci xiir waaw te yàlla na ñu ci saxal waaw yàlla na ñu ci xiir te yàlla na ñu ci saxal waaw ñuy remercier nag njaboot gi yëpp tabarakallahu waaw comité d'organisation bi ak seen taxawaay ci gan yi te gan yi itam dañu gën a yokk te ñoom guddeeg bëccëg ñu ngi ci liggéey bi tabarakallahu waaw chaîne de télévision yi diffusé ba njaboot gi nekk à l'extérieur yëpp nga xam ni tey jii tabarakallahu mën nañ ci jot waaw ak ñi nga xam ni itam yàlla dafa dogal nu feebar yàlla na yàlla saafara leen tabarakallahu waaw xalifa ibrahima fall ndeysaan fii la daan toog moom it dafa xaw a tawat waaw suñu yaay ajarul soxna mbay dafa ñëw rek waaye mi ngi sóof sax ndeysaan waaw yàlla yàlla sàmm leen ak ñi feebar ñëpp tabarakallahu waaw ndax jamonoy toll foofu day dem ba kenn du wér koo gis rek am na lu muy doxaale waaw tabarakallahu waaye yàlla moom moom mooy saafara yàlla na saafara ñëpp di zaahir ak ci baatin waaw tabarakallahu di remercier nag ni ma koy faral di waxee ndax colonel mi ngi koy wax léegi balaa ñuy balaa ñuy wàcc waaw di wax ko xool fii béréb bi 2009 ak na mu mel léegi ak leen fi def waaw nga xam ni tabarakallahu borom taxawu na béréb bi te loolu mooy li fi am solo waaw moo tax nag nuy décerner mention spéciale Cheikh Maguette Sow mii waaw waaw waaw Cheikh Maguette Sow mii waaw parce que daaw ñëpp gis nañu bi ñu ñëwee fii mari ut bi ni muy yéegee ndox mi waaw daaw gàmm gi oto yu bari paan na fi ci ndox la ñu jaar Cheikh Maguette Sow mii moo defar tëli bi onze millions la ci def waaw waaw waaw te moo ko defar diggante digg ba ba fii waaw waaw te moo ko defar waaw kon nga xam ni tabaarakallaahu waaw onze millions la def ci tëli bi ngeen gis waaw maari ot bi ba léegi mi ngi fi mais ndox mi moo mënatul yëg tëli bi waaw waaw kon nga gis ni ñun ñi ni ñi ni remercier mooy sunu njaboot gi nekk ci mission bi di ci liggéey heureusement ñun ñooñ la ñuy remercier waaw ndax lépp ñoo koy defal suñu bopp waaw te loolu mooy li ci am solo waaw su ko defee nag tabarakallahu kenn ku nekk rek yal na yàlla barkeelal la te nangul la sa yéene waaw ndax ku nekk am na yéene ni ma koy waxee yal na yàlla barkeelal la te nangul la sa yéene waaw daayira yi nekk à l'extérieur yëpp ñoom itam dina suivre en direct ñoom kenn ku ca nekk ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu waaye kenn ku ca nekk ñu ngi lay ziyaara waaye kenn ku ca nekk ñu ngi lay sant waaw ndax ñoom ñu toog ci kanamu télévision yëpp di seetaan ñun yëg nañ ko tabarakallahu ndax kenn ku ca nekk boo mënoon yaa ngi teew fii waaw waaye yal na yàlla baawaan yiw bi ñun ñëpp ñu bokk ko ci zahir ak ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nu jàng fatihatul kitab ñu tënk ci haajo yëpp tëje ko salaatul fatiha insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين